bay ay gendarme ay dee di ci am ah ay talpona ak ay cocktail molotov luñ mosul gis Sénégal ay cocktail molotov am te Macky Sall mënul régler problème Pape Djibril Fall mii la lañ Sonko bëgg ne bu kenn yuuxu est-ce que xale yaa ngi koy yuuxu xaaral ma déglu ah kii moom dafa ñu déglu war ngaa sant Sonko de Sonko moo ne bu kenn yuuxu Sonko du nit dañ déglu Pape Djibril waaw. très bien Pape déglu leen waaw Agassi bokk dégg nga ah Sonko du waaw. dégg Sonko du nit Sonko du nit xool leen lii da ngay seet lii dégg ngeen mais gars yi bu leen tombé ci piège bi de pare na bare na Sonko Sonko du nit gis nga Sonko de moo ne xale yi bu yuuxu waaye kii président waaw. waaye du doon yow de du yow du doon yow de dégg ñun ñii mi ngi kàttal boppam. gis nga ni ñu sabatee laaj bi gis nga ni ñu sabatee laaj bi mais Sonko du bu Pape Djibril Fall ñëwee bu waaye bu fi Khalifa Sall ñëwoon. voilà gars ma defal leen commentaire attention bu leen tombé ci piège bi Sonko boog ay eh waay ay eh waay Sonko photo ay eh waay président Sonko doo nit de gis nga de bu dul woon Sonko Pape Djibril Fall teg tànkam gars yi bu ci piège bi dégg ngeen Pape Djibril Fall li mu wax Macky Sall du bokk mais loolu bu leen tax bu leen ne yëfu gérée la de moom boo demee Macky wax na ko ñoom ñëpp xam nañ ne Macky du bokk xam nañ ne Macky du bokk Macky xëy na lii la bëgg Macky dafa dangereux Macky bu nee bokkutuma kon Pape Sall bu ñëwee di wax Macky doo bokk tooñul Macky parce que Macky moo ko wax ne ko du bokk l' Sonko bu mu bokk dégg nga mu ne ñun ñii ñoo war a defar 2024 léegi bu Sonko bokk bu Macky bokkul ñoom dañu yaakaar ne population bi dina nangu ne ah comme Macky bokkutul rek garaawul quoi foofu nag lañ juumee. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Il faut que mais ils n'ont rien compris Sonko est bokk par force par A ou par B Sonko day bokk. waaw voilà, balaa balaa je wax sax xamatuma fan laa fan Voilà, je analyse. affaire Au champ. li tax ne faut pas. le perdre contrôle ak gendarmerie. ñooy xëccoo terrain bi parce que ñoom erreur bi ñuy def dañuy dem ci tubaab yi jox leen tubaab yi jox leen xaalis ñu jël xaalis jox ci sëriñ yi sëriñ yi nekk foofu muy laayeen yeeg muy yu xamul ñu daggal leen ci ba pare comme jël nañu avance dootuñu mën a reculer léegi moo tax gendarmerie tamit xam ne bu reculer Auchan day nangu suuf ñu def fa seeni bunt ne waa Yoff kenn du dugg ci terrain bi booy itam leen du fi amee kilifa Yoff yi du fi amee ñu commencé taal ay kër taal nañ kër Farba taal nañu kër Cheikh Yérim te boo leen toogaat ci tuuti bu gars yi continuer rey nañ fa benn xale bu gars yi continuer mën nañ fa taalaat beneen kër Macky Sall nag ne benn site internet door su dugg di filmer xeex yi mais nit ñi téléphone lañ yor te lu war a génn incha allah dina génn léegi problème bi am mooy li tax Macky am problème. nan ngay jëlee suuf yoof nga ne da ngay génne waa yoof yóbbu leen ci benn bayaal pour tabaxal leen ay kër te Akhenaton nañu dañ ko bëgg def ko Monaco def ko ñoom daal mu nekk seen seen club privé parce que côté yooyu dafa rafet dafa am géej dafa ay hôtel dafa lii dafa laa dafa ay dancing dafa ay terrain de golf terrain de tennis baa dooloo dootu fa teg tànk ñu yaakaar ne loolu mën na jàll fii ngeen xam ne Macky Sall dafa kayta kay ni faramata bandak il a perdu le contrôle mënutu sax contrôle général Moussa Fall contrôle Abdou Meng ba ñu ci bu Adja Diallo Pape Djibril Fall mandat mais ce du xibaar le du xibaar xam nga est-ce que dina japp Sonko le 15 parce que Macky mom bu dina fexé ba Sonko du té dafa comprendre le affaire. Macky Sall dafa war a comprendre benn affaire xanaa affaire bi léegi mu jeex Macky li mu war a comprendre yi ngeen baal ma nag sama téléphone bu tàngee day jékki-jékki rek planqué bu planqué rek xam leen dafa tàng man est-ce ma bouger sax naaj rek. xaar ma woon naaj bi ginnaaw tuuti waaye bu ñu ko wanee ginnaaw nag image bi dootul leer ah loolu sonn waaye Macky Sall la jël nga ñu Macky sonnal nañu Macky la jël nañu léegi.

bu ñu autorisé woon marche bi march bi bu jeexee Sonko buy ñibbi xale yi dañ koy gunge te Macky Sall buggul gis xale yi wan cofeel Ousmane Sonko bu boobaa grenade yi day takk te bu grenade yi takkee mën nañ taal ay bus mën nañ def lii mën nañ def lii France 24 wane ko ñëpp wane ko moo tax Macky mu autorisé ci bi scénario bi mu lañ jox nañ ci bàyyi xel bu baax gars tey dama kaa yeewoo dama am épiphanie mooy da ngay toog des fois da ngay nga am yëg-yëg da ngay toog rek nga am yëg-yëg yëg-yëg bi ma c'est très difficile à croire maa ngi répété sama bopp sànq ba mais c'est très difficile à croire mais Macky Sall dafa mel ne jël na décision de du def troisième mandat waaye Sonko du bok. loolu rek mo mën a justifier Barthélemy Diaz dadi dadi euh, euh, trahir euh, euh, Sonko Khalifa Sall dadi trahir Sonko mais comme ni mu leen ko waxee parce que il faut que ma passé ci beneen point man gëm naa ne Macky lool loolu la loolu la leen wax mais ñoom li ñu war comprendre mooy Macky Sall mooy nit koo xam ne dalay lay wax lii tey suba mu changé loolu la waxoon ne Idrissa Seck Macky noonu la naxee Idrissa Seck 2019 dafa ne ko ñëwal ànd ak man ma jox la conseil économique et social 2024 bu jotee ma bàyyi la nga diriger benn bokk yaakaar noonu la naxee Idrissa Seck. ba Idrissa Seck gëm ko waaye Idrissa Seck ba mu demee ba ci biir gis ne kii dafa bëgg def troisième mandat mu bàyyi def na ko ak Idrissa mu réussir mu ne xaaral ma def ko ak Khalifa Sall te ñii ay dof lañ ay jaam lañ te dañuy xaru gars yi du waa APR rek ñoo dara dee ci 2023 bi de Barthélémy Dias menacé wu ma la waaye sa dund bi ngi ci xottu gerte billahi barke rasul laaj Khalifa Sall menacé wu ma la waaye sa dund mi ngi ci xottu gerte bu fekkee ne Sonko dara dal na ko parce que tey bu yéenay tax tey Macky Sall am pit lu mu ñemewuloon def depuis deux mille vingt et un bu Macky songee Sonko la quinze Barthélemy yaa ko dooleel bu Macky songee Sonko la quinze Khalifa Sall yaa ko dooleel Khalifa Sall nag munoo ñu nax yow Bart Bart sax moo la gën Bart sax la gën ndax Bart bu fekkee mooy Gira. moy jaam mom moom au moins génn na mune man na def li waaw man damaa bëgg nit koy assumer mais yow Khalifa Bart mo la gën fouf yow yow yow yow naa fekk nga te Ousmane Sonko lu tax Khalifa ñëwul ci ci ci meeting bi gis nga ko fi est-ce que gis nga ko fi Ousmane Sonko bàyyi layam layami Khalifa Sall ni nga attaqué. Euh, euh, Barthélemy Dias noonu nga war a attaqué Khalifa Sall ndax Khalifa Sall moo yónni Barthélemy Khalifa Sall bu yónni wuloon Barthélemy Barthélemy day génn mu ne Barthélemy waxloowu ma la man Sonko laa àndal man sama candidature soxlawu ma ko parce que man mënu ma nekk président non du ko wax parce que moom dof la Khalifa est pire que Barthélemy Dias ndax bu leen fàtte ne Khalifa si boppam dafa bëggoon trahir Barthélemy Dias imposé ñi sol xam war diini man foofu laa njëkk a waaru bi foofu la jaaxle ñëpp élection maire yeewu askan bi ñun ñu bokk ci yeewu askan bi sol xam war di ni xaw ma sonxeem war di ni koo xam ne kenn xamul fu la dëkk xamuñu Mauritanie la dëkk et lan moo tax Sénégal ngeen baal ma je ne suis pas xénophobe mooy la haine contre les étrangers mais lan moo tax Sénégal libanais yi rax ñu marocains yi rax ñu capverdiens yi rax ñu ba pare bëgg ñun bëgg bëgg nangu suñu réew. lan motax sol xam war dini yag na ko génneel vidéo ken xamul nar la ken xamul libanais la libanaise la xawma solom war dini xawma sol xam war dini ha xawma sol xem war dini ni fu mu toj fan la toj maire boobu fu mu toj ku ko xam kan mo fi xamone sol mar dini war dini xawma war ga suukar xawma war dini xawma mais koku yow simple adjoint maire nga woon ñu éliminer Khalifa Sall nga nekk maire de Dakar par défaut ba pare nga dem ànd ak Macky Sall mais je rêve quoi non mais c'est pas possible Sénégal Sénégal lu dëkk nee Sénégal yàlla daf ko war a dafa war a xëy benn jour mu mugal mais Khalifa Sall mooy jaam ci législative yi ci ci municipal yi yow askan def li def Khalifa jaar ci suuf bëgg imposer solem dini te Soham ci Moustapha Niass la bokk te Moustapha Niass Macky Sall lay liggéeyal mais loolu Pape Alé Niang ci boppam dafa génne émission mu dal Khalifa Khalifa Sall ko yow li la parti xeexal li la parti xeexal Khalifa mooy jaam bi Barthélemy du jaaz Barthélemy du jaam du jaam Barthélemy dof la jàngul